Anta Babacar Ngom kan mooy Anta Babacar ngoom ñu bëri bëgg nañoo xam kan mooy Anta Babacar ngoom ñàkk ni ñenn ñi xam nañ ko waaye bu ngeen teelu tuuti moo wax leen kan mooy Anta Babacar ngoom nekk doom ci ki nga xam ne nag moom mooy Babacar ngoom borom Sedima Sedima nag benn société la bu ñu créé en 1976. moom Anta Babacar Ngom nag dafa posé candidature am si présidentielle yi di ñëw 2023 mu jaaxal ñu bëri waaye nag am na parcours bu riche benn parcours bi nga xam ne nii daa leen ko dégtal. Anta Babacar Ngom nag mi ngi judd 1984 à Pikine fii nii Sénégal waaye nag mi ngi yaroo Malika ci ferme familiale am boobu nekk Malika teel a gëm boppam à l'âge de ci la commencé liggéey waaye benn parcours bu riche surtout nag ci wàllum njàngam. Mingi ngi defee primaire am Immaculée Conception de Dakar après mu jaar lycée international bilingue benn collège bu nekkoon fofu non ci Almadi waaye moom Anta Babacar Ngom benn année ci la amé ñetti bac am bac Sénégal am bac international ak bac fi nga xamné nak mom moy bac américain ci la amé nak benn bourse d'excellence bu ko état Sénégal joxoon lool mo waral mu dem France dal di fa def un an ci benn université après n'ak ci la changé dem fi nga xamné nak mom moy Canada def fa 4 ans don fa def économie am fa nak li nga xamné nak moy master 1 ci la intégré benn da ko bi mu ñëwee nag ci la nekk directrice fii nga xam ne nag moom mooy Sedima nekk benn entreprise familiale def nag li nga xam ne mooy plus de huit cent personnes ñu fay liggéeyee moom Anta Babacar ba mu dikkee nag ñu ràññee ci xale yu gën a ndaw ci ñi nga xam ne ñoo jiite entreprise Sénégal ba tax sax bokk na ci directrice entreprise yu gën a ndaw fii nii ci Afrique waaye yàgg naa jël li nga xam tamit moom mooy ay raaya maanaam ay meilleure directrice fii nii ci Afrique moom Anta Babacar Ngom nag bi mu dikkee ba tey gën yokk li nga xam entreprise familiale boobu noonu parce que nag boo xoolee Sedima ay milliards lañ ci investir te ñi ci jël si ndawu Sénégal bëri te ñu jiite loolu yëpp nag xam-xamam moo ko may ndax dafa jàng ay différents parties yu bëri du ci mel waaye yemul foofu noonu bi mu waxee day bokk ci élection 2023 ba tey nag mi ngi jur benn sikk sàkk ak benn jiixi jaaxa waaye loolu nag yéen sénégalais yéenay choisir Anta Babacar ngoom am na benn carrière bu riche maanaam benn parcours bu riche bien vrai que ni entreprise familiale la nekk waaye nag parcours am ak jaar-jaaram rafet na loolu marié ba am ay njaboot te jigéen ju dal la jigéen ju calme am charme mën a wax ak public bi te foo ko fekk mi ngi déglu li nga mooy askan wi dëgg salarié la woon wala fonctionnaire et cetera nga def benn mandat génn nek multi multi milliardaire. non mais il faut qu'on se dise des choses. il faut qu'on se dise la vérité je suis désolée mais c'est pour ça qu'il y a ce ben fossé entre les Sénégalais te lolo tax nit ñi mer. lolo tax xool yi jug tax nit ñi di agresser parce que jàpp nañ ne lii ñuy jël ñoko mo fi réew mu toll je vais créer des emplois non man je vais créer des entrepreneurs et ce sont ces entrepreneurs là qui créer des des entrepreneurs ils créer des entrepreneurs ils créent des créer emplois système démultiplicateur parce que le mal est profond. Anta Babacar Ngom la parcours positif sama gars yi beneen siwal sa business siwal sa business ak authentique pro yow mi jaay wala liggéey bu mu mën doon nga bëgg mu siiw léegi léegi léegi léegi jokkool ak authentique pro defal la ci sa contact dugalal la ko ci seen page YouTube ak authentique pro daal dina yombal sa business